di rafetlu ak am mbégte nga recevoir ndax xam nañ lu leer ne bu dul woon li ñu bokk daara ji doo dugal sa loxo ci lii ndax représentant xalifatul am tijaan yi fii ci Ndofane nekk imam ratib bi su dee politiku caaxaan rek waaye dañu am loo xam ni alxuraan daf ñu ko wax dañu ko daan amee beneen lecture ànd ak sëñ Maam Baalu Mbàkke ànd ak ma ànd ak ñépp ñi nga xam ne nii ñi ngi may jàppale ci liggéey bi ànd ak Ndey Lobé Lam mi nga xam ne nii mooy coordonnatrice bi ñu fekk fi sama mbokkum daal mii ku bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma di ko seetaan waxtu wu ne amin faal kon lay sant la gërëm nga may ñu rek ñu wax ci suñu gis-gis ci daara ndax ñun dañoo ñeme tudde suñ po suñ programme daara ji tool pénc bëgg leen wax nag daara ji nga xam ne ne moom la fi Cheikh Sidi Alhaji bàyyi woon jële ko ci Cheikh Omar Fouti mu jële ko ci Cheikh Ahmad Tidiane jële ko ci yonant bi Serigne Touba ñëw jël daara jooju daara jooju moo nekk amal njëriñ Sénégal daara mooy jàngale ngir yàlla daara jooju mooy tudd doom ngir yàlla daara ji mooy ngénte ngir yàlla daara ji mooy denc néew ngir yàlla ba jël alalam di ko ci dugal waaye daaray tubaab jii de lu mu la defal ne la làmbal sa poos boo ko lambul direct tamit na ko lamb ci leneen ndax danañ la jaay ceeb ne la fayal tax wala la ñu la courant fayal tax waaye daara dem musta fayu tax kenn musta laaj kenn dara kon nag buñ demee ba nga xam ne nii dañ na xayrukum man taallama alquran wa allamahu ki gën ci yéen mooy ki jàng alquran di ko jàngale ñun yàlla wax ñu loolu yonent bi wax ñu ko ñu bëgg ñoo ñàkkal fay danañ bañ nag waaw nañ bañ ne leen déedéet sàkku ñaan ci yow sàkku ak jàpp ci yow jàpp ci yow ndax kat ñun lii daf ñu war te buñ ko deful rek yaakaar naa danañ ci am yowmal xiyaam li ñu ci ma ne mënoon nañ lay recevoir ca daara ja fa gune yaay toog di jàng alxuraan tey jii mënoon nañ dafay wàcce ndax ñi mi nañ loolu ndax xam nañ ne taalibe daara moom daara jomb ko kon fa tabaarakallaahu gërëm nañ bég nañ kontaan nañ waaye dañu sant yàlla bu baax ci moom ndax toogut ba xam mooy yéen ci état doog a liggéey boo ko bàyyee xel yàgg na di yëngatu ci développement ak social loolu moom dafa yàgg di liggéey liggéey boobu nag ci la dem ba bis jot dama wax yi ni yonent bi toogutoon ba am moyen dogal loolu moom wax dëgg yàlla lëggéeyam la kon jot na nag daara ji it mos. waaw amee ba amee ba amee liberté ba léegi ah. ak ay sëriñ newoon fi bu élection jotee rek ñu ne sëriñ bi ñaanal lu ñuy def rek ne sëriñ nañ dem mu ñaanal nga jàng faate ak falaax ak naas jot na ñu xam ne ñaanal fa ñuy dem lu fa ne. Ah, waaw jot na ñu xam ndax ñu nit liñ xam. mën nañ cee doxal réew mi bi ci la ci xoolal ni mu kulinee àdduna xam-xamu islam ci la kulinee àdduna wala fa tabarkalaw mbuub ñëw nga sa kër yaay sunu candidat candidat wu da taalibe yi can candidat wu chambre de commerce yi chambre de métier yi baykat yi ñi seen loxo jotut seen gannaaw yaay seen candidat te yaakaar naa ne boo demee daañu am ndam waaw yaakaar naa ne xam nga ki xam li dagan ak li xaraam xam xalaal xam lépp kooku boo ko dénkee alal yaakaar naa ne dana ca màndu yaakaar ji taalibe yi am foog ne boo demee poti yalwaan yi danañ danañ danañ mën a teg pot yi nag am luñ jàpp yaakaar gi ñu yaakaar ne boo demee jumaa yi danañ yegg te rafet yaakaar gi ñu yaakaar ne boo demee imaam yi dañ mën a taxaw xutba dëgg yal yàlla matal loolu. incha allah sëriñ bi nga ñaanal ñu rek. bañ àgg ci loolu te incha allah te buñ ci xasee jot. gaa yi dootuñu jotati. ndax danañ ñam loo xam ne nii. duñ ko loolu la leer xasee jot ci réew mi. waaw ah. duñu ci jotati. loolu nga xam naa ñu fi sa ñooñ lañ li sa lool la. daara jaa ngi taalibe kër gaa ngi kër mambal ak kër gi ma su koy séparé. wax bisimilah euh, kër gi sa kër la. njaboot gi sa njaboot la ñu fi ne si nee nga jàpp ci lañ jàpp bu jëkk bu jëkk amin waskuru is antum qalilun mustad'afuna fil ardi taxafuna an yataxatafakum an-nas fa a'inu wa ayyadukum min al-sirri warzuqkum min al-ardi bisazalika ba'di hanna fa in qaribun ujiba da'wata da'i isa da'ani falistajibu li وليؤمن بالله قال أرجى من أمر الله رحمة الله وبركاته حلف البشر إن أمير مجد نصر من الله فضل وكان حقا علينا نصر المؤمنين اللهم صل على سيدنا mënuñoo toppatoo baykat ba baykat nekk buur ba baykat manal boppam ba baykat su euh, bayee ba noppi jariñoo ko kon daanaka ñuy ñu jaratul ñu toog Sénégal mënu ñoo toppatoo baykat ba baykat nekk buur ba baykat manal boppam ba baykat su euh, bayee ba nopp jariñoo ko kon daanaka ñuy ñu jaratul ñu toog Sénégal ndax ah danaa ko yaatal ba nga xam ne nii ñoom nañ mën a transformer seen produit di ko mën a jaay fépp ci àdduna bi duñ jëndati dara loo xam ne bitim réew lañ jóge lépp fii lay jóge incha allah mooy li ko jiitu rek defal mbay mi bañ man koo jariñoo fexe ba seen suuf ñu moom ko fexe ba di bay di am euh, rendement fii ñu am ci kër bakka soriwul ña fay bay frère danañ fexe ba lépp danañ ko fa bay banaanaak yëpp danañ ko fay bañ xam ne Saalum am na lépp buñ ko defee jàppale jigéen ñi bañ man koo transformer di ko mën a dund di ko denc di ko mën a jaay bitim réew waaye waa bitim réew gëmuñu gënuñu lu tax ñuy defar di ñu jaay ñun ñu bëgg a nekk rek société consommateur niñ ko defee ci mbay mi boo ko defee ci càmm gi def ko ci napp gi ndox maa ngi fi soriwul hmm? ndox nga fi lépp moo ko man wala nga def ay bassin de rétention wala nga def ay bassin ci biir kër yi fii man loolu mooy suñu programme dañuy fexe ba nit ñi ni ñuy yare ak jur ci seen kër ñu yare ko ay jën ci seen kër loolu nag day ànd ak sécuriser dëkk bi sécurité bi am doole xam nga lan la mooy fexe ba ndaw yi am liggéey bu ñu amee liggéey sax ci dutu amati kenn dutu mooy sama programme ci Saloum nee na am réew ku ko bëgg jiite da ngay am xam-xam waaye la ci ëpp solo mooy jub ndax ku ne xam na ni yonent bi bii ummi la woon maanaam illettré la woon waaye lu tax ñu tudd ko amin ak jub la te ku ne xam na ni yow ku xool sa parcours fi nga jaar ci daara ak léegi ak société bi nga jiite fi nga ko yóbbu ku ne xam na ni ci jub nga ko teg kon mën ngaa bari xam-xam lool waaye boo jubut mënoo jiite kon jub googu gis nañ ko ci yow ba ca desit mooy doomi Saalum nga nga ñëw fii ci Saalum kon defe naa yéen waa Saalum am ngeen gan mu ñëwit fii nag ci kër sëñ Mame Balla gi nga xam ne mooy kër sëñ Touba nun murid yi nga xam ne yaakaaruñ lu dul sëriñ Touba te ku ne xam na ni sëñ Mame mii dara bëtam xam naa ko bu baax du ànd ak nit ngir dara kon su jógee ànd ak yow ànd naa ak yow ci ngor ak nawle waaye ànd naa ak yow ci bëgg a defar réew mi kon damay wax ni yéen ñi nga xamante ni yéenay taalibey Serigne Touba. ngeen bàyyi xel ci ni kat seen sëriñ bii Serigne boobu mii mooy candidat bi nga xam ni moom la joxoñ ànd ak moom te jàpp naa ni mooy candidat bi gën ci candidat yi. kon damay wax sama mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom laa bokkal nekk fii ku fi jóge tey ba keroog élection yi di jot loo man ci dox ko. ngir jàllale message bi ni kat candidat bi gën ci candidat yi mooy Serigne boobu mii ndax moom la Serigne bi tànn nga def ko. nga wax ak sàmmkat yi danga wax ak nappkat yi wax naa ko keroog président Macron bu France salon de l'agriculture ba ñu def France xam na ne bu fa demee lu ko naqari rek la fay dégg ñu sotti ko meew ñu sax baykat xam na ne mooy pilier de développement bu France